sama yaay jee sama yaay ji gisuma ku ma lay mën a weccee yaay ja gaaw te gën mhm. man maa ngi tudd Maam Bousso juuf maa ngi judde judde Caaroy Kaw buy baax na waaw lii de moom dañ naan man guleet laay wax ndax biñ fi nekkee ba tey ñu ngi doog a gis genre kii maire di ko def waaw mosuñoo gis suñu bopp daal ci maam maire yi fi nekk ñi fi mës a nekk yëpp daal gisuñu woon ñu taxawaay taxawaay yi daal waaw ah, xanaa mu def comme moom rek waaw ndax lii moom bon exemple la. asalaamaaleykum man la Awa Ndiaye ah xanaa sant yàlla rek initiative bu baax la de wax dëgg yàlla macha allah jigéen ñëpp a ngi ciy gis seen bopp ak borom kër yi ñëpp ku ci nekk rek yaa ngi ciy gis sa bopp fi mu nekk nii. xanaa ñu jéem a roy ci moom rek. maire boo xamante ne nii toog nga ci gox rek nga jéem a roy ci moom daal ndaxte vraiment lii moom ndimbalu ñëpp la daal ñun jigéen ñi ngi ci gis suñu bopp borom kër yi tam góor ñi ñu ngi ci gis seen bopp macha allah xanaa di ko ñaanal rek li mu bëgg yàlla jàppale ko si ba mu am lu kawe njortam ci barke yonent bi ok jërëjëf merci. salaamaaleykum. maa ngi tudd Ramatoulaye Sakho maa ngi dëkk Jidda Caaroy Kaw ne ko responsable groupement Sopp na bi. ah dañ naan rek dañoo kontaan ci Modou parce que moodu wax dëgg yàlla dañ naan eh, ba mu duggee jidda caare kaw jigéen ñi yëg nañ seen bopp léegi ndax xam nañ ne maire am na ci biir jidda te Modou xam na ma bu baax mu nekk nit koo xam nit ku dynamique nag ci li muy def am yërmande aussi wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla rek lépp lu muy yóotu rek yàlla na gën ci moom gën ci njabootam ci darajay nabi Moustapha yal na dem ba toog ci poste président ci barke yaa rasulillah loolu rek la ñuy ñaanal Modou Gueye xam na dama naan ay idée idée lay la fi teg ndax du bii rek ndax tey boo duggee bi ji jidda caaroy kaw ba ñuy yëg seen bopp tey ji ci parti politique surtout APR bi tey ji c'est grâce à Modou Gueye kon nag dama naan Modou idée bii mu def nii teg lii di ko liggéey da koo dolli mais mi ngi gën a def leneen loo xam ne xamagu leen ko après ngeen xam ci biir ndax ku xool jidda démb xool jidda tey xam ne am na changement nañ ko ñaanal yàlla daal yàlla jàppale ko merci beaucoup. waaw ah, Mariam Ndiaye laa tudd dëkk Lansar waaw arrangé nañ de parce que ñun ay commerçant lañ te suñ doole bariwul suñ dikkee mu lebal ñu ñu jaay versé waaw. waaw lu rafet la moom buñ sañoon mairie yëpp def ko parce que bu ko defee ñëpp defee rek ñëpp liggéey waaw bu mairie yëpp defee nii ñëppay liggéey. salaamaaleykum maa ma leen di nuyu ñëpp. maa ngi tudd Awa Cissé maa ngi jugee CFA. ah lu rafet la moom wax dëgg yàlla madame la maire mi ngi jàppale jigéen ñi def naa ne ku bëggut liggéey rek si yow la waaye kaay ñu liggéey ki la ko woo te laaj la dërëm koo mu ngi lay jàppale bëgg na nga jug liggéey ci la def naa ni kon nag dañ koy remercier rek di ko gërëm ko ñaanal mu yokk xanaa di ko ñaanal rek mu bañ fee jugee di toog chaque jour dañ koy ñaanal deuxième mandat tam dañ ko koy ñaanal ndax lii mu wane nii lu neex la ki la dig moom bu la joxee añ rek war rek war koo gëm wax dëgg yàlla li mu wane moom moom lu neex la te lu baax la tam encore waaw merci. salaamaaleykum bisimilah ñoo ngi sant yàlla bu wér di sant yonent bi di sant sunuy waajur di ñaanal waajur yi nekkoon ci kër gi te yàlla def li ko neex yàlla na leen yàlla xare àjjana ak sunuy waajur yéen fa fekk ak mboolem jullit yàlla dolli jàmm bu weeru koor wi ren. bu déwénee lii yàlla na yàlla bu mu xajati ci kër gi ci kàttan yàlla yàlla na ko yàlla ful. Mhm. xanaa dama kontaan rek ndax am na yenn teraanga yoo xam ne bu ko doomu aadama defee ak fii réew mi toll ndax dina am jox-jox yoo xam day mel ni may. kaay jël frigo kaay jël congélateur dem liggéey loo am dugal di def bëccëg loolu yaakaar naa ni. ci ku jàppale réew mi ak bëgg réewam rek ko jar ci xale bu dem liggéeyi xaalisam ñëw mën a dugg otoom mën a dem baatare ji mën a jël ay këram mën a wàcc ay kaat katam def lii damay ñaan rek ñun ñëpp nañu ko ñaanal daal nañu ko xool ñaari bët te ban ko xawal benn wàll bët bu ko kenn piis nan ko waaw ko kenn piis waaw nan ko xool ñaari bët xam nga ndeysaan damaa jekk ci xale te duma xale man la Khady Mbengue bu Médina Gounass dëkk Malika tubaarkàlla 63 ak léegi du dara waaye dara la waaw ma juddoo fii na presque yaroo fi màgge fi nag xam nga xam ndigiri gaaj kal la ndax di nga ànd ak nit defe ne yaa koy nax waaye fekk na sa bopp faatu ci fu fulaam la ne ci dimbali réew mi rek la toll dimbali réew mi jàppale jëkkëram muy kan Modou Gueye jàppale Modou Gueye moo tax mu bëgg kuy nitu Modou Gueye kuy nitu kuy nitam bokkul ñëppam mboolem jullit bu ne ak doomu aadama bu yàlla bind daal faatu nee na nga ñëw kër yaay ja xam nga ni mu tuddee barab bi rek dafa firnde gis nga fii ku fi am sa yaay fonkoo ko perte nga dañuy wax ni ku am sa ndey foye ko gis ko am ndeyam tee ko lii ci tee ndey la bokk ndax bi ñu jëlee barab bi tuddewuñ ko kenn dañ ko delloo la woon fa won tudde ko yaay ja kiri ko tudde nag ñàkk koo xam wóoru waaye man mi ko xam mu yar ma teete ma ci kër gii xam naa kan mooy yaay ja lii mën naa nekk téeñ bi rek la yan bi dikkagul kon nanu ko jàppale ndax ku ci nekk kum ci nekkul sa yaay sa mag la kum ci nekkul sa mag sa rakk la kum ci nekkul sa rakk kon bu bëggee lu baax dem liggéey bitim réew ñëw indi ko senegal ne dund bi metti na dëkk bi jafe na lii bu ko ñetti nit defoon ba ñeent jotoo dégg coow xam nga tubaarkal réew maa ngi reg-regi ñii naan damaa xiif ñi naan dama mar ñi naan dund bi daa seer waaye sama doom ji fay biram benn waagaan lii mu def bu ko ñaar ba ñett defoon fi toj di too dégg xuloo fi ne kenn talatu ko bu àjjuma jotee fii fees del ñi ngi jël ceeb jigéen ñi jàmbaar lañu ñi ngi jël congélateur ah xale bu góor te te ku sa jabar nga bëgg boo bëggee tubaarkàlla chambre à coucher loo am jox ko mu jox la à chambre à coucher nga yóbbu sa kër ci ndimbal la bokk lépp nag tubaarkàlla mu teg ko rek ci jàppale borom këram gii di Modou Gueye mu ñëw baax fekk ko mu baax tubaarkale yàlla noonu yàlla boole jàppale ñun ñëpp yàlla moo xam li gën yàlla na ko yàlla def njiit nag dafa metti boo bëggul ku la wax dara tëddal sa kër nelaw moo jeeg bu naan nam ma daraa ci raw nam ma dara kenn du ko wax dan la koy waxal Modou jëfam ci biir réew mi moo jiitu sëy beeg Faat Fay Faat Fay it nag xaarul ba Modou Gueye takk ko muy def social de politique tax koo jóg déggoo wax bi boo déggee politique tax ko jóg lii politiser ko day jàppale ci këram ba mu neex mais lii di ko ca fekk dimbali nit jàppale nit commercial am nay diplôme ba jàng jotee dafa jàng waaye bu tekku liggéey liggéey jotee nag dafa jot. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. sama bëgg la ndax bu bëgg la dafa am woo bi la dama bëgg waa dama ma jàppale ma bëgg dama bëgg ma ñëw waa ma xoolee mais dama ko maa tere ba bi bi laa nekk yow ma ñëw fii ma ma wax ma ñu mel nii bëgg naa ne ma bokk naa ne bokk naa ne

ah wax dëgg yàlla ku ne gis na si sa bopp man bokk gis naa si sam bopp ndax indi ravitaillement jox nu ko ñun jobot yi ñuy ñëw di fay ndànk-ndànk ba mu jeex loolu ku la ko defar amoo fayam dañ koy ñaanal yàlla rek fu mu bëgg a egg yal na ko fa yàlla eggale lu man ren yal na ko man du déwénee te yàlla bàyyi ko borom këram ma dem Guèye moom amu amuñu fayam amuñu benn fayam moom wax dëgg yàlla yonent tax kaay ma jox la nga dem lekk ba suur naan ba mànd di doxee ndànk-ndànk sax kenn du la sonal kenn du la woo téléphone kenn du la fitnaal kooku moom amuñu fayam dañ koy bàyyee yàlla suñ borom yàlla mi am fayam yàlla na yàlla na ko fayal boppam ci barke Seydina Muhammad Modou Gueye waxuma la premier premier bi day amaat beneen mandat beneen mandat day toog ba doyal rek daan joxe poste bi ndax moo ko liggéey wiññeeku suñ président Macky Sall duñ sañoon du wàcc waaye bis bu dee wàcc Modou Gueye mooy dem toog sun président Macky Sall bis bu doon wàcc Modou Gueye mooy dem remplace xanaa kon loolu neex na. waaw man maa ngi tudd Rokhaya euh, dëkk Géejawaay Corniche Almenko Wakhinane ah dama ñëwoon pour jël ci sama ay bagages waaw euh, dama defoon ci pré denrée alimentaire yi macha allah. ñu woo ma ne ma génn na ñëwal nga jël moom laa ñëwoon pour jël si ko waaw. ah li mu def te xanaa di ko féliciter rek di ko encourager aussi te xam ni fi mu teg tànkam foofu la comme yàlla dafa dogali nag ñoom askan bi lañ fi nekkal boo fi nekkalee askan bi di def li neex askan bi ah defe naa jiwmuñu nii moom bu dakkoon rek ca kaw ca kanam parce que société bi lii lañ soxla man damaa bëgg kuy def social. man damaa bëgg koy def social ndax dëkk bi metti na jigéen ñi ay jàmbaar lañ jamono neexul kon bu ñu gisee koy def social li ñu jàppale kaa leen liggéey sama genre gi ah nga xam ne ñu ngi ci kuruj karaj gi boo leen jàppalee woo leen kaa leen liggéey may nga leen dooleel te liñ naan may nit kiy jën jàngal ko ni ñuy nappee moo ko gën te kat madame la maire nii ma gis lii mu def nii macha allah macha allah liñ naan chaque grand homme y a une grande dame derrière lui moom mi ngi ci moom wane na grande dame am grande dame nag du sañse defar ba mu baax jaagar jaagare lii mooy grande dame lii mooy brave dame man daal li may wax mooy dama koy gën a encourager di ko féliciter d'abord di ko ñaanal suñu borom yokk ko di gën a dëgëral taxawaay bi macha allah macha allah parce que lii daf maa touché man ba mënu maa wax vraiment daf maa touché. dernier message bi mooy fi mu teg tànkam rek comme ni ma ko waxee. foofu la di woo nag population bi di wax ñëpp tamit nañu yaatal parce que lii am na ñoo xam ne xamuñu ko te soxla nañ ko te buñ ko defee defe naa madam le maire tuyaaba bi mu ciy am ñoom tamit pareillement dinañ ko ci am ñu fexe yaatal eh, ku ci jot rek soo gisee koo xam ne moom am na jom te bëgg na avancer nga fexe ko cee yaatal daal def ndax généreux dafa baax il faut être généreux waaw